jaam yim gërëm. jaam yim toppul dara. jaam yim toppul dara. jaam yi yërmandeem jiitu ci ñoom mbugalam. jaam yi yërmandeem jiitu ci ñoom mbugalam. yal nañu yàlla méngoo ci saayir ak ci baatin. yal nañu yàlla méngoo ci saayir méngoo ñu ci baatin yaa rabbi. yal nañu yàlla fegal bépp musiba ak bépp balaa. yal nañu yàlla fegal bépp musiba. ak bépp balaa yaa rabbi. yal nañu yàlla fegal wépp ak borom xay wa. yal nañu yàlla xiir ci lam bëgg ak ci lam gërëm. yal nañu yàlla xiir ci lim bëgg. xiir ñu ci lam gërëm yaa rabbi. yal na yàlla jox ñëpp seen i càkkutéef ci saayir ak ci baatin. yal na yàlla jox ñëpp seen i càkkutéef ci saayir ak baatin yaa rabbi. yàlla baal ñu ñun ñëpp. yal nañu yàlla baal ñun ñëpp. baal suñuy waajur ñun ñëpp. baal suñuy waajur ñun ñëpp. baal suñuy mbokk yëpp. baal suñuy mbokk ñun ñëpp. baal suñuy xarit. baal suñuy xarit. ak suñuy taalibe ak suñuy taalibe. ak képp ku ñu dénk ñaan. ak képp ku ñu dénk ñaan yaa rabbi. képp ku am ak ñun kolere. ak képp ko xam ak ñun kollëre yal na ko yàlla jëriñ ci saayir ak ci baatin yal na ko yàlla jëriñ ci saayir jëriñ ko ci baatin yaa rabbi ci àddina ak ci àllaaxira ci àddina ak ci àllaaxira yal ñu yàlla wattu ci gëm yàlla yal ñu yàlla wattu ci gëm yàlla wattu ci suñuy doom wattu ci suñuy doom na ñu yàlla boole ci jaam yem sopp yal na ñu yàlla boole ci jaamam yem sopp ñem nangul ñam nangul yal nañu yàlla jubal yal nañu yàlla jubal yaa rabbi kër ñu ci lam bëgg ak lam gërëm kër ñu ci lam bëgg ak lam gërëm yaa rabbi yal nañu yàlla may gëm yàlla gu mat yal nañu yàlla may gëm yàlla gu mat taxee ñu ci topp yàlla gu rafet gu dëppoog sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxal ñu ci topp yàlla gu mat gu dëppoog sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nangul ñu ko te nangul ñu ko yaa rabbi te faat ñu ci bés ba gën ci suñuy bés def faat nit ci bés bi gën ci suñuy bés gërëm ñu gërëm ñu yóbbu ñu aljanna ci kër ak soppeem ya yóbbu ñu aljanna ci kër ak soppeem ga ñu dëkkaale yonent yàlla Muhammad ak yonent yi ak saabaam yi ñu dëkkaale yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yonent yi ak saaba yi boole ñu ci soppe yàlla yi gisee yàlla boole ñu ci nga xam ne lépp luñ mébét yàlla dana leen ko jox nga xam ne ñoom lépp luñ mébét yàlla dana leen jox loola. képp ku fi dikkoon ak soxla yàlla na ko yàlla faj li ci dul ma yàlla. képp ku fi ñëwoon ak soxla yàlla ko yàlla faj lépp lu ci dul mooy yàlla. ku fi am ko am soxla ku mu mën a doon yàlla na yàlla faj soxla sax. ku fi am ku am soxla lu mu mën a doon yàlla ko yàlla faj. ku fi amoon ku na ko yàlla saafara. ku fi amoon ku ràgg yàlla na ko yàlla saafara ci kanam ak wét. ku fi ràgg yàlla la yàlla saafara. ku fi am bakkaar yàlla na ko yàlla baax. ku fi am bakkaar. yàlla ko yàlla far. mbooloo mi yàlla bu ci yàlla def cëtëb safara. mbooloo mi yàlla bu ci yàlla def mukk cëtëb safara yaa rabbi. ñëpp yàlla na leen yàlla dugal aljannaam ji. mbooloo mi lépp yàlla leen yàlla dugal aljanna. barke yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. barke yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. barke Seydina Abubakar Sadiq. barke Seydina Abubakar Sadiq. Omar ibn Khattab. عمر بن الخطاب عثمان بن عفان عثمان بن عفان علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب طلحة talhatu subayru subayru saadu saadu said said abdourahman ibnu abdourahman ibnu hoof abobaydata ibnu jara abobaydata ibnu jara barkeem ñooñ badar barkeem ñooñ badar barkeem ñooñ uut barkeem ñooñ uut barkeem ñooñ hudaybiya barkeem ñooñ hudaybiya barkeem ñooñ lasaab barkeem ñooñ lasaab barkeem fatu makkata barkeem fatu makkata barkeem yonente yàlla muhammad barkeem yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam alquran yàlla ko ko wasal ki alquran yàlla ko ko wasal ak kim ko wasal ci moom ak li tax mu wasal ko ci moom yaa rabbi القرآن يلا يلا دفع القرآن دي أول لاي ونيال دي أول لاي نيال يا ربي يلا بومي لاي ونيوار يا ربي يلا بومي لاي ونيوار يا ربي برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فايد تيجان جوخ نيوينا